ahlu sunna di weddi sufi yi di wax ay waxi kase waaye dañoo xamut ne combat bi du ñoo ahlu tasawuf lislaam ak euh, église beeg yooyu yëpp dafa am combat bu rëy bu leen di xaar ñu ngi toog fii di saaga maami jàmbur yeeg fekk xamul ne ñii ku mel ni ahmadu rafax yu ne bi mu seetee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ko dama la daan woy nga may seet si ak sa jëmm mais tey seet si naa la damaa bëgg nga jug jox ma loxo ma jox ko loxo jaxaraan ñooñu muy weddi xamul ne côté boobu nag am na beneen magicien buy def leneen mu jaaxal la nga ne ma mais Abul Hasan Saaselo yi dafa wax ne seytaane laxnatullahi alayhi mën na lu ne ci soppaliku mais euh, ragal yàlla la amul foo nekk mu fekk la faak di la gis waaye mënul ragal yàlla ragal yàlla mooy différence bi loolu lay tarixatu Saaselo yi Abul Hasan wax mais ñi nga xam ne ñi ngi weddi fee yi nga xam ne nit diine yi am nañ ko nga xam ne ñoom ñooy kàngami diine yu mag yooyu di Abdul Xaadir Jeylaan Euh, Cheikh du Bamba di weddi seeni miracle dem nañ bay weddi julli géej gi ci sëñ Touba te sëñ Moussa sax dégg nga mu naan Bamba xoos na géej ga ca mbuuru Bamba naan na géej ga ca mbuuru gi fi fi la taxawee julli dem nañ bay weddi yu bëri yoo xamante ni dafay tegtale ne rek euh, ñu ngi naan ahlu sunna kaaba ga ak léegi fekk loolu bu ñu xamoon rapport yiñ ci nit ñi def bëri na tey ñu bokk ak yow ñeneen bokk sax ci ahlul kitaab am yeneen téere mm-hmm. considéré wuñ suñ prophète dañ daan lu fiction la abbas yoon yi trois cent siècle après lañ créé affaire yi am na fan yee siit bu ma seet si naan waaw Muawiya dem nañ ba tourné ne Damas chrétien la woon ma ne ko loolu bu ñu ko waxee kon da ngay dëggal ñi naan Muawiya mustaxam lislaam buur chrétien la woon boo xam ne nii génne nañ sax ay fee yu bëri bu boobaa kon Karbala ak nga doon dégg ak àll yoon kon yu bëri kon amul parce que kon xamut yooyu abbas yoon yi lañ ne moo créé yooyu jël ko tudd doon def fat fatxu damasxa nee nañ xijaas sax du màkka abbas yu wax ci yu bëri yow ñi lay weddi dem bay weddi abraham nekkam naan fiction dem bay weddi sardeer da den naan ab léeb la hmm. mais ñooñu Moïse noonu pharaon yi ne mosuñu xam ko tudd noonu yahud yee leen sosal yu bëri ñu wax ko yow boo taxawee di dëggal loolu léegi nag ki leen mën a jëmmal yow yoroo gisoo malaaka mu yore laaf di bind yëpp ay wax la yow yaa ko gëm ne lii la kii ne ki ko mën a dëggal li la wan looy gis nga xam ne moom sëñ Tuubaa moom xanaa ñun ñi nga xam ne moo jur suñuy maam moom xanaa doo weddi ne amul mu wan ngay gis waxtu sax ñemewu koo faat kaneen noonu kaneen noonu Jeylaani sax sori na may xanaa sëñ Tuubaa doo ko noonu lay demee ba 200 années ñu naan la sëñ Tuubaa amul ñu ngi commencé di weddi ba xam sunni bi ñëw nag naan la man sunna sunna di weddi ñam tegtaloo sax am na ay jullit yu dem ba di ko weddi am na ñu dem ba naan tey boo nee Abu Hurayra ñu ne la bàyyi muus mi ñu ne la abdullah wala nangam kenn du la wax turam ñii ne xaxaa ibnu xamru ñii ne nangam dem ba yenn saxaaba yi sax dañ naan la fiction la te ay jullit ne yow koy wax léegi addis yooyu yëpp dañ koy weddi naan parce que 300 années après lañ bind addis ko bind benn yahud ñu ne 300 années mënoo ne gañe nga perse benn gi la ñuy dem ba di ko boo xam ne nii benn xaramu ikireen la woon bu fa tegee woon ak nangam ak comme ni bouddhisme yi def la ñuy def ni ñu solo wedd yu bëri ne benn daw la roi moo ko teg ku ne ne sërif la dëkk bu ne woote woo surafaawu parce que dañoo bëggoon a xeex église bi ñoom loolu lañu def ci ay rapport yu yàgg fal si rapport yu bëri wedd diine yu bëri kon ki xamul nag loolu accédé wul ci loolu toog liir benn livre di weddi keneen parce que yaa ngi weddi loo xamante ni kooku mu ngi xeex ci diine loo xam ne su fii rek ngay gis mu ne la gis naa yonent bi suufee rek ngay gis mu taxaw ne la toog naa moom gis naa lii gis naa lii ku ci mel ne ñun ñii di wax nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne suñ Tuubaa jagleel nañu li mu doon wax naan sixtu la si saal ila wal ila isaawuma sixtu bi laa am nañ ko xëy na mën na koo rafaatale nag bi yàlla moom di ko def ko neex ku ko weddi dangaa am moom sa ko weddi waaye wax teg naa loolu nag nga xam ne tey mën nga ne na yonent yooyu dégg ñu naan la amut ak nangam yow gis nga leen kooku yow ku koy doo ci bokk hmm. loolu moo tax xam dafa baax bari na ahlu sunna kuy ñëw tey di liir ay téefa téere ñaari junni at di wedd téere yooyu dafa sore am na ñu gën a jege ñooñu ñu nekk fii ñu jëf la téere yooyu bind te sukkandikoo foofu ku mel ni Cheikh Ahmad Tidiane ku mel ni Cheikh Abdul Xadir ku mel ni Cheikh Mouhamad Abdul Hasan ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba jëf yi ñu fi jëf boo ko weddee loo fiy teg da am ñoo xam li ñu bay ci waar ci diine boo leen weddee jën diine nga fiy teg xanaa jeneen la ju dul lislaam ay teg fii di wax wax yoo xamante ni te bëri na ci histoire l'islam lu bëri loo xamante duñ ko nettali ci reyante ci xeexante ci lu tax ñu doon xeex xaccoo xalifa xaccoo alal xaccoo nguur ñaari nit mënuñoo xeex ñaari junni nit dégg nga ne kenn tooñul yónnuwul maanaam génn dëgg moo waaye dañu bàyyi noonu kon nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk di symboliser diine nañ leen wagar te xam ne ñooñu ñooy ñoŋal diine Mhm. donc bu ñu la déglee dafa mel dafa am li nga xam ne da nga leen di joxoñ baaram aussi sa biir wax dafa mel ni ñooñ ñooñ daf ñuy dañuy def benn genre lavage de cerveau xam nga àdduna tey sëñ Tuubaa mi dem nañ bay weddi histoire bi di nga dem ba ñaar téeméeri at mën nañ ne la sax amutoon ku tudd sëñ na ci géej gi noonu la ñee toll rek tey dafa am lu bëri loo xamante ni ahlu tasawuf dafa soowe lislaam xalaat mooy di ñeneen ñu ci bari bi ñuy ñëw ci quatrième siècle bi ci après prophète bi yàggul mais suyee nañu rôle bu bëri imaam xasaali ba déggoon mu naan alxaqul mutasawifuuna moom dafa demoon ba nga xam ne ni fu nekk su fa bi mu bëggee xam nag lan mooy dëgg dëgg dëgg mbir mi ci la duggee nag daan ne dëgg gaañ ci tasawuf jàngi philosophie xam wedd yi xam yeneen yi défendre ko bind ki lu bëree bëree bëri loo xamante ni neewaana kuy wax ci ax ahlu tasawuf te doo sukkandikoo ci Muhyiddin yi Arabi wala imaam xasaali donc ñooñu ñooñu ñooñu buñ la dégg ñooñu lan moo leen tax a jóg lan mooy seen intention réellement ñoo ñi ngay joxe ñee dañu bëgg a def. la loolu benn kii bu ndaw laa ko waxaale ci biir bi may wax ci miracle yeeg lan mooy lan laa ne bari na ñuy weddi yu yoo xamante ni euh, dañuy jàpp ne rek ñoom andi nañ beneen sunna boo xam ne nii euh, parce que Arabie Saoudite dafa am leneen lu fa dugg si loo xamante ni après ci lañ daane sari fuy beneen daw la ñëw boo xam ne nii ci la ñëw bi muy ñëw it dafa am beneen ñu ñu ko accompagner ci wàllu diine ñoo xam ne Mouhamad Abdul Wahab Abdul Aziz bi ñu ñëwee nag jël daw la boobu ci lañ exploité pétrole yeeg yooyu mm-hmm. après nag ci lañ indeel benn fatwa boo xam xamante ni ci lañ génne lu bëri ne dañuy yeesal affaire wu sunna ci lañ indi règlement yu bëri woyofal yi yu bëri yoo xam ne seen nguur mooy affaire sa faawa ak affaire ngëm yeeg yi yeneen te li ñu aayee su solif yëpp dañ leen koy defar dañ leen di sujjootal ak màggal ak mel ne luy jaamu waaw loolu nag euh, seen intérêt bopp moo tax ñu def ko rek waaye dem nañ ba bëgg ci génn ndax xam nañ ne conséquence risque bi mu leen l'islam benn la dañoo war a booloo te xam ne wu wute woo xeet bi mooy njëriñal xeet bi loolu addis la wute woo lu bari gi it wàññiwul dara ku ne ak gisiinam du tere ñu nekk ay jullit ahlul kitaab sax waruñu noonu moom ba ci chrétien bi man ray sax ñoom ñu nekk li ci bëree bëri rek euh, dañuy dawal benn philosophe démocratie boo xam ne ni yàllaa ko njëkk a digle lakum diinukum waliya diin il faut ñu bàyyi ku ne nekk ci mu nekk te bañ a nekk di saagante li xew léegi ñàkk sab live di def lu la neex di wax lu la neex di tooñ sam nawle euh, alul kas fu dem na ba ci ne ñu ne euh, bu boo jàkkaarloog sa moroom xaati fii lay dikkal comme wax la ne la diwa ngi ñëw diwa ngi nàngam nangam nga xam dañ ne yàlla sax mën na leen ko xamal dañ ne boo gisee ayib ci sa moroom yàlla waxu ko sa jinnee la ko wax yàlla du wax mukk ayib loolu dem nañ ba wax ko ne yàlla day protéger ayib bi nit kon nag toog xam nga pauvreté mooy waral loolu lépp suñ dëkk yi